allah deux minutes la ñu dem. aywa yaa ci màggal gi de. Oh, waaw parce que dañoo ñëw pour liggéeyal sëñ bi nag. màggal gi commencé gun ngay sonn. waaw ñëw pour liggéeyal sëñ bi moo tax. lan mooy sa destination kii si kër ab Baye Abdou Karim euh, nga ñëw fi tey ngir feete màggal gi ak moom sa liaison ak moom sa diggante waaw parce que si moom laa jébbalu mooy sama sëriñ. ah ci moom laa jébbalu te moom it ma yaakaar ko. Hmm? muy sama lépp sama waa ji nga xamante ni def na ci man ngëneel la rek moo tax fi lay nekk fi lay màggalee. d'accord awa mise mi nekk ci showbiz taalibe la day wéyee ndigal yi te for nañ ci ci weewu bay wala ci yi ñu wax naan ndigal yi moom mooy ren nañu sellal te wormaal dëkk bii di Touba gisuñ la nga def pause waaye dafoo sil dafoo dara dafoo sax make up tout ndigal li ngay wéyee te dafa am loo ci àndal. waa ndigal li nag même su fekkul sax ñu joxee ndigal li man saa su may ñëw fii damay sellal. bu dul sax dara bu weesoo sama liggéey bële na la damay sellal hmm? ndax sellal bi mooy li nga xamante ni mooy li war mooy li gën ñoom ba biir Touba ah te jëfe woo ndigal bi moom moom ak moom ak moom ak moom ak moom ak dara yam moom ak ñàkk ñëw moo yam loolu la rek moo tax. mais artistes yi on a tendance di wax ni bu ñu mag deful make up wala bu ñu dolliwul quoi seen seen beauté dafay nëbbu. est-ce que du loolu complexe la. mais mais mais euh, de genre du ma ne complexe la parce que am na ay nit yoo xamante ci noonu la ñuy doxee man mise à part maa ngi nii maa ngi si sama jàmm xooluma ñaaw naa xooluma rafet naa maa ngi xool rek yow da nga ñaaw wala yooyu. non non non am kersa aw ma ci benn vexement. d'accord sa accoutrement yaay Fall la. yaay Fall la waaw. d'accord awa Ndeye Ndiaye Banaya namm nañ ko daanam. Banaya mi ngi fi mi ngi Touba màggal si na. taalibe la. mi ngi Touba. mi ngi Touba màggal si na. moom rejoindre na leen ci euh, nga bi nga gisee mu loolu ak ko defee ci wax yéen ñaar. waaw man nu ma koy dundee nu dul contentement Ndeye Ndiaye mooy awa awa mooy Ndeye Ndiaye. Hmm. on est donc loolu aw dara lu ma koy dundee lu dul bëgg sotti si ak def si la te te te te bu mise à part c'est le Banaya qui gagne. waaw mais mais ñëwam bi est wu aw ma dara lu may vexé pourquoi mu may vexé. que dañoo fort ci wéewu ñu ne yaa ngi def ay sorties ci sa statut WhatsApp di def ay gaaru man loo xamante ni sama sorti la man ci samay statut man képp ko ma xam xam na ni du dugal dara lu matadi wala dara loo xamante ni nit daf ma ciy gis dama xeeb sama statut loolu daman kooku du man kooku du man looy jéem Ndiaye li ma li ma koy wax li ma koy wax mooy li ko sénégalais di wax mooy que ni genre day gën a gëm boppam gën a focus ci liggéeyam ah gën a antu ak moom gën a liggéey liggéeyam gën a gëm boppam te xam ne fii lu dul yàlla neen la yàlla rek moo fi nekk. mais en tant que sa deret la loo koy conseillé ndax seytaane xaj na fenn koo xam ne aussi tamit mun na yàq seen diggante yi te yow ngeen ñaar bokk ngeen deret. Ndeye Ndiaye li may li may waxante mooy mooy li may wax ak man li ma koy wax. loolu kese la jarul toog ci ay télé di wax awa Ndeye Ndiaye wax naa ko lii wala awa wax na Ndeye Ndiaye li may wax ak moom li ñu dund la man ak moom waaye. ana Wally. papa mi ngi fi. Ah. day magal si parce que murid la. kañ nga gëj a dégganteeg Wally. mais kañ laa gëj a dégganteeg Wally loolu moom mooy la démb si suba tànk ci ngoon ak màggal gi lal la ci wax lan ngeen déggante ci màggal gi. comprendre ma li nga bëgg a gi màggal est-ce que Wally déggante gi gëj nga déggante gi. mais sama papa ngay laajte ndax gis naa dégganteeg moom wala gis ma. bien sûr parce que am wax naan waaye même ñi ko jege sax jot ko téléphone yombul. danga koy jot même ñi ko jege jot ko téléphone loolu xëy na waxu nit ñi la rek ñi ko war a jot ñu ngi koy jot waaye. mais yaa ngi préparé voyage bi Londres. waa incha allah. di incha allah. Wally may na may na benn benn repos de une semaine day jaay Banaya ci hôtel day jaay génn wax que nii ne première fois ñu may ko mu am temps wu dem hôtel mu dalu te Wally moo ko defal am na ñu ne genre gaaral la wala genre pic te mu njëkkoon nekk naka nga gisee sortie yooyu est-ce que c'était nécessaire pour mu def ko moom day jaay. te soo li ngay wax ni sax yëg naa ko yëgu ma ko de. <laughs> yëguma loolu de lu ma la si wax damay fen barke màggal gi. gisoon Ndeye Ndiaye di sant Waly. gisuma ko de. parce que Waly da ko may mu dem def reposé wu ci benn hôtel de une semaine. barke Ahmadou gisuma ko. xanaa doo doo gis statut euh, Ndeye Ndiaye xanaa. non gisuma ko maanaam li ngeen ma wax nii gisuma ko affaire de hôtel wala dara gisuma ko seetaanuma loolu. su ma ko seetaanee nag bu ngeen ma ci posé question dinaa ci wax wala ma wax ci ak lii. kon Ndeye Ndiaye waxul la la ni Waly defal na ma wala teraanga bi mu defal Ndeye Ndiaye daf ko ko war a defal parce que si awa la ko njëkkee tontu wax naa leen ko léegi léegi nii. donc mais la moo tax médiatiser woo ko. médiatiser comme Waly defal la teraanga nga médiatiser ko parce que. olof nee na parce li mu may defal. genre concerné wul comme eh, internet yi ma ko jël di ko posté si internet yi nit yi di ko gis sama diggante man ak moom la muy diggante papa ak doom mu defal ma te yàlla rek tax. ma jël ko ci yàlla rek tax ñaanal ko ci yàlla rek tax mu am ci ngërëmal yàlla loolu kese la. yow dañoo gis sa scène ci scène chaque fois boo joué da ngay wan ne que yow yaay chef de chef chef de. sur scène sa présence que yow yaay chef ndax dama bëgg a wax Ndeye Ndiaye Banaya mi nga xam ne mu ngi soog a ñëw yaay yaa koy jiite wala waa wala déet. képp koo xamante ne yaa ngi ñëw biir Ramadan ñekk feccikat da nga am njiit muy jigéen di góor. da nga am jiit man bi ma ñëwee dama fi fekk sama ñaari papa muy Arma ak ak di Badiane képp lépp loo xamante ni dama koy def si dama ci wax ak sama papa Eumeudi moom mooy chef amul kenn koo xamante ni day ñëw di doon chef di am dara lu muy imposé lépp ci ça dépend de Eumeudi mi nga xamante ni moom mooy diriger loolu. Ndeye Ndiaye bu ñëwee day topp si day topp si ginnaaw di comme man ni ma ko defee loolu kese la. mais jigéen ñi kan ma ne la muy jigéen di góor Eumeudi Badiane moo res loolu. awa Banaya. d'accord awa ce que def nga benn analyse si jigéen ñi doon feccal waali pour tëj ko gisoon nañ kook ak ndey si mu def fa yàggul mu dem tukki gis nañ fi aussi euh, jabaru Kiné Badiane moom ñëw na fa yàggul dem tukki lan la feccal waali si seen euh, doon jigéen moo doonul carrière boo xam ne gudd na wala ñoom ñooy préférer utiliser turu waali après pour ubbi seen yeneen business pour dem est-ce yaa ngi yaa ngi xalaat yooyu noonu. ah man de xaw ma kenn nag wax dëgg neex yàlla. waaw il faut moom moo ci gën a yàgg ci fecckat jigéen. waaw ci si seen waale. waaw ma ne euh, genre euh, si si ñëw keneen euh, wala wala. wala ñëw nekk si waal yi feccal ko après nga dem xëy na <laughs> man awa ñooñu noonu xëy na si seen focus bopp lañu demee mais man ci sama focus bopp liggéey rek moo ma ñor parce que si laa judd si laa màgg fàttali naa leen ko wax naa leen ko yéen ñi nga xamante ne chaque jour ma tase ngeen ngeen dékk ma micro sët laa ci suñul si soxo sët laa ci bannaa si saxo musique moo teral sama yaay teral sama papa ci laa judd ci laa màgg ci lañ ma ngénte ci laa melee nii ma mel nii tey musique moo ma defar ba yéen ñi ngeen xam ma ba di ma dénk micro ci lay focus te moom lay gëm bu sama carrière jeexee wala gisatoo leen aw Banaya mu fecc dafa fekk mu bàyyee feccal Wally loolu moo tax pour tënkal leen. waaw Wally c'est éternel donc. éternel waar am na de. je n'ai rien à foutre. Youssou woo de Youssou da woo de. Youssou Ndour. Sénégalais mooy que ni kontaan naa kontaan naa si si ñëpp gis naa fan si gis naa nit yi. ah di leen wax ni ñu gën ma ñaanal ah te xam ni ndaw laa rek bu bëgg dara bu bëgg taral ndey ak baay képp koo xamante ni yaakaar nga si ndax wërsëg la rek bu suñu borom jaarale sama loxo bi képp ku ci lekk rek dafa fekk suñu borom may ma ko kon du gën leen maa ñaanal rek ma am ngërëmal yàlla rek. yaa ngi tontu fan si si WhatsApp bi vocal